waaw mais sama gaay yéen a ngi ne tekk de mel ni yëgu leen li xew gisuma kenn ku ci yëy gisuma kenn ku ci yàbbi kenn waxu ci yal na ñu yàlla musal ci sénégalais bu doyal sénégalais bu la xesee ba classé rek classé na la parce que yéen defe naa nit sax boo koy may lu bëggul xanaa dina la wax merci maanaam ma yëkkati sama alal man di la may loo xam ne bëggoo ko mais sama alal la wala sama doole la sama ñax xanaa di nga ma wax merci parce que ku ne xam ne tonton yu fan yee génn na xamal jeunesse bi carrément ne leen moom tout le temps mu ngi ci seen ginnaaw saa yu ngeen soxlaa rek mu taxaw man dama paax personne baal naa ko yéen tam waroon ngeen génn sax ne ko tonton yu def benn réaction xamal ko carrément ne ko. mais dara